abonnez-vous ci chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, se ne ngeen moom Seydi Gassama directeur exécutif d'Amnesty International file ci Sénégal daal dinay rek yëkkati kàddoom ci alxames bile jëm nag ci jàpp bi nga xam ne jàpp nañ ko moom leader bu Pastef bi di Ousmane Sonko ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci moom ginnaaw jàpp bi nga xam ni jàpp nañ ko jëm nag moom ci opposant bi ci nguuru Macky sàll mu ni loolee mën na indi itam yeneen rek jéeya file ci réew mi te ñun jàmm ak salaam ak dal rek lañu soxla te loole mi ngi ci loxo nguur gi rawatina moom njiitu réew mi mag Macky sàll ndax ñaata yoon rek la ñu daal di jàpp njiitu nag Sénégal bi fi nekkoon Abdoulaye Wade daal di koy rek tëj ci atum 1988 ba 2000 ak 2000. te gis nañu nag boobe ba tey lu jëm ci wàllu jeu boobee ñuy amal lépp rek politique moo ci daal di lalu kon itam est-ce que du loolee mën na nekk itam ñu daal di koy gis nu nu mel. ginnaaw gi nag kàddu yile ca ab entretien bu mu amuloon suñu nattaango yile di Sénégal 7 la ko fa yëkkatee.